Biram bisin Sen, l'enfant serré de Biban. Hé hé, Kelwa Gejek. Sampuna Bejen ba mom Biram Misil Sen. Eh. Na taxaw de. Pemuda mu daanu de. Hé! Eh. lu na. Ndeysaan. Waaw waaw, ci lamb

janvier 2022 waaw waaw duudoo ngi noonu ehe eh. kole Diofior baa ngi noonu nee naa la xuutal xuutariwul xaabar xaabariwul daa liggéey am fulaak fayda ñoom leen bëree ndool ndeysaan ñu ko sa tànk waaye gabari ak fulaak fayda ko fi indi hee eh, eh. Doudou Sané ñu ko mujjee woon a gis fi mu laal sa 25 ñëw fekk fi Birame Mbissine fi Misaan bu Mbour fekk fi Siyaaka Fall fekk fi Famouta Bassoul am na ñoo xam fi ne ni seeni fit dem nañ billaay mbëri mel ni laal yoon seeni fit nee na mooy waaw fi Ñagar rakk caaka fay bis bi fi tas yaakaar oh oh fi tiki ndeysaan teg ko Jordan Junior teg fi ñaari Jordan Junior sax laay wax cey duudu l'enfant séeréer de Diofior waaw waaw xel dem si Mama Aïssa Adam ba ndeysaan oho ana Mama Aïssa ehe nee naa la Senghor ya ndeysaan rouge noir blanc rouge waaye meew pire mi ñu waroon a des si cere nga di ko sot billaay duudu mere naa la hehe waaw waaw hehe kon ak yow fi yor gaa ngi noonu sa jàpp hehe hehe na Kër Fodé tout péré de Diombi tout bu gaa yi wàllu seen ñu wax ak yow waaw waaw eh mbarum duuma yi noonu mbarum zilo la am ngi gis bee béjjén a ngi dee sa ginnaaw tegal la. waaye kii kan la kii kii may seen kii. kii kii. non as bàyyi bàyyi ba bàyyi ba bàyyi mu bàyyi noonu ba mu. ñu wax ci rajaxe. ñu wax ci rajaxe. mbërum ambulance maa ngi noonu. oho. oho. Famara Bass bu simal. woy woy woy woy woy woy woy woy. waaw waaw. waa groupe WhatsApp bi dinañu mere. da xamal tax ñuy mere. Eh. da da ngay ba action yi retard ba pare nga leen koy doog a jox. mais saa yi bu ñu doon am direct bi nii. Eh. non. oh kel waa jeejek tey coom bi xar ñaar nee naa la élection yi taxoon fi ngeen bee passé sànni lu ñu dara nee naa la lamb ñun fu ci nekkee lu korje yi naan ñun yëguñu corona eh. ndax lamb waaw waaw waaw waaw oho ndeysaan rajo xee ngi noonu nee la tout péré de bi lolou ko le taxé nan waaye yéen bàyyi leen bari bi mu jàll Sokh Papu Ngane ehe Papu Ngane Sokh Sokh bi da bagé mam Juuf a kor sige waaw waaw mooy bi jital poli ko koy Papu Ngane Sokh laila ehe la ilaha illallah tay fi du yom barke borom Touba fi du yomb he he pëlëm ba nga noonu nee naa Babou Ngane mu ñëw fekk fi tour Sané fek fi Famara Bass mu simal fek fi Famouta Bassoul fekk fi ko fal fek fi Bissi Junior mu ngi nonu di he he Manila fek fi Jordan Junior ñaari Jordan fek fi do fek general bu ngariñ waaw waaw eh kanyaro ko bi na baage maam Diouf ko Korsike nee la fi kan passé dañoo namoon li barke borom Touba oho capitaine yàlla ndeysaan làmb ñu neex fii si Diombi tey di le 29 janvier 2022 joyeux anniversaire ndeysaan suñu yaayu daara ji moom soxna Mami Koli waaye général Diop suba la anniversaire am ak ki nga xam ne ndeysaan mooy Baye Baye Bicol waaw waaw promoteur bu mag bi si porte Sarène Baye Bicol mu Modou Jam Téeri Baye Bicol mu Ahmed Kara borom Petite Côte waaw waaw jële ba bol bi waaw waaw ak Baye Daaru bi mu takk si dënn maa ngi ñëw foo koor si nga jom ñare ndeysaan waaw bataay bi ndeysaan

बाल कया चवो की

Thank <laughs> you.